waaw salaamaaleykum sama gaay maa ngi ni si ak si nekk man dala jox sa wàccuwaay Youssou Ndour Youssou Ndour man day démb bi ma xoolee sa concert ñu toog fu dëkka sonkurise loolu Youssou Ndour way naal ba agsi fii ma su ñoo sobote noonu sa concert ba pare na nga ne dangay maye deux minutes mais loolu gàcce la si yow Youssou loolu gàcce la si yow billaahi gàcce la maa ngi gis nag ña toogoon ak yow xam naa ñi ànd ak yow di tàccu si geste bi nga def waaye loolu gàcce la ñu war tàccu le fekk ne xaaral may leen deux minutes ngeen laaj si seen message message bi lan la libéré Sonko libéré Sonko xanaa sax boo mayee message ba pare <laughs> boo jëlaatee say way nga nga nga nga développé dégg naa sax génn nga mais dégluwuma sax xaw ma sax li nga wax hmm? bàyyi nga sa yoon Youssou bàyyi nga sa yoon ndeysaan donte ne yaa ngi bëgg nit ñi si way yi <laughs> waaye bàyyi nga sa yoon de xàmmeetuñu la Youssou Ndour ma daan bañ bu ñuy tuutal aw askan Youssou Ndour ma ma bañ bu laa tuutal homme politique te Youssou ndur moomu moo ànd ak nguur. nguur la def naka su dul noonu Youssou Ndour na pat dem sax bay sànni xeer opposant opposant bi gën a faar nga dem fële di way ñu taxaw naan libéré opposant boobu nga taxaw na dangay may deux minutes Youssou Ndour seetaatal sa bopp cinq mois quatre mois bëriwul dégg naa nag démissionné nga bàyyi nga loolu yow la rek xëj na li nga sentiir moo tax nga bàyyi léegi waaye nag seen fin moo proche seen jëkkantal moo proche incha allah Ousmane Sonko dina falu yàlla dina ko jox réew mi mu neex leen mu naqari leen teg senegal ci yoonu njub teg Sénégal ci yoonu développement dindi fi càcc alalu askan bi Sénégal développé jëm ci kanam. yal na ñu yàlla defal sutura yal na ñu yàlla defal sutura